alsiyaamu junna wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain yéen mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci turu al cheikh Mouhamadunil Muntaqa al xalifati al aami li muridin yal na ko yàlla sàmm dëgëral ko dooleel ko di leen jottali ci ndigalam kàddu yi ma koy tàmbalee ndokkeel al aalam al islaami bépp ci weeru koor wi teru di weeru mbaax nuy ñaan yàlla defal nu ji tawfiq ak taysiir ban def ko ni ko diglee dem nangul lépp gannaaw loolu sunu borom nee na moo farataal ci nun koor ngir len képp nu am taqwa taqwa nag li koy jëmmal ñaar la lijtinaab ak limtisaal muy bàyyi tere yi yàlla tere ak def ndigalam yépp kem kàttan lim tere suñu lor képp sant suñu ñu rekk wa yuxillu lahum altayibaati wa yuxarrimu alayhim alxabaa'is ci loolu nee na nan a yeesal pas yi gën a fóot xol yi gën a kaweel yitte yi ci sunu diggante ak sunu boroom gëna a yeew bopp ci buumu njàngaleen sëriñ bi nga xam ne weesuwul dinu jëme ci def ndigalu yàlla bàyyi ay tereem kenn ni ko yonente Muhammad andee nan nan koy teewal saa su te xam ne li gën la tànn indil ñu ko ñu xam ne ndigal lu jóge fi moom nii dana tax na ba lor du ci mën a jóge buñ ko defee def luñ tere it safaan bala njariñ du ca mën a jóge la tafaalu shay'an bi gayri idni فالإذن شرط في قبول الشأن buñ koy wax loolu buñ koy wax defe naa ne ndigal lu demee ne ndigalam moo tax ñuy wax ñu ngi ci li jëm ci natt bi yàlla wàcce muy mbas mi am na ñu naan loxoy doomu aadama mu ci waaye du tee muy natt bu yàlla wàcc ndax mbindeef luy pexee ngay rëy day soob yàlla mu soog ko sotti tubaab yi kan nga leen ëpp pexe lu ne fexe nañ ko ngir jële fi sëriñ Tuuba te sottiwul du nuy pexe de yàlla moo ci àndul la yàlla bëggoon def na ko muy jëlee ko fi te seen yoon bu ci ne yafalu ma wa huwa ala kulli cheyin qadir sëriñ bi nee na ñoo ci natt bii yàlla wàcce ak gëm yàlla ak wóolu ko ak moytu ak fegu ni ko ci loolu matuwaay yi ko yi waa kër docteur digle ñuy digal ñépp ñu ànd ci ak ñoom kuy diglu digalam kone ñu ngi la koy digal ñii nuy digal ñu jàppale leen ci lépp luy fekk tasaaral jàngoro bi di coronavirus lu demee ne di sol muuraayu gémmiñ ak bakkan bu jàppandee tey nit ba génn mënta ñàkk na seet di génn te buñ deel see raxas suñu loxo ak saabu ba mu set te ñu moytu joxante loxo lu baax du doy la wala wax dëgg la waaye asalaamaaleykum waaleykum salaam doy na sëkk ci nuyoo ci jamono ji ak jamono yu demee na moom ba yàlla jeexal ko faral di wax ak nañ koy waxe ñeen ñi di wax ne ibqaw fi manasilikum ñeneen ne si tey xew ñeneen wax naneen ñeneen naneen wasaayirul ilaam guddi ak bëccëg ñu di ko dégg defe naa ne def la yàlla moo fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun ahli zikri mooy waroom xam-xam yi rek moom mooy waroom xam-xam yi ci diinay yahud ci waroom xam-xam yi ci diinay yahud yahudi yi ak nasraaniya ña cay ahlu zikri mooy al ahbar wa ruhbaan waaye ak faju ci jàngoro yi docte yi ñoo ci ahlu zikr nañ leen di diglu nañuy déglu bu baax li wax ci fegu ak faju te koy topp loolu du tee xam na yàlla mooy kaafi yàlla mooy shaafi julit julit bu dul naafiq bu ne gëm yàlla mooy reggal yàlla mooy màndal te du ko tee lekk du ko tee naan fegu ak faju yëpp noonu la war a demee xam na yàlla mooy kaafi xam na yàlla mooy saafi wërtatee ñu koy def lenn lu ne lim min yàlla di ko fa jaarale fa falam koy war a sàkkoo ci moom buñ defee li ñu mënal bopp ba noppi nu boole ci di ñaan yàlla ndax mu defal ñu liñ mënalul suñ bopp boo bañee sadaa ba réer yeew ko teg sàmm gi ci loxol yàlla ku mën ñaan nay ñaan képp koo xam ne wóor na ko ne imaan mi ngi ci moom te muy jëf lu baax kem kàttan na xam ne àdduna bi soxla na ñaanam sëñ baa ngi ñaan bu baax waaye lu baax du doy bi yàlla ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin day mel ne ud'uuni astajib lakum seetewul kenn waaye am na laaya boo xam ne manees na caa xam ne settee na naafiq ak faasiq moo xam ud'uuni astajib lakum da koo firee jaamu leen ma ma yoolal leen ci ma defal leen ci tuyaaba wala da nga koo firee ñaanal leen ma ma may leen lu ci ne mën na koo firi moo tax baatu ud'uuni ànd ak baatu an ibaadati bañ a ànd ak an daawati baatu an ibadati itam ca mujje mënoon naa ànd ak baatu afdooni waaye mi ngi ànd ak baatu udooni loolu lépp day wane ne seeni benn la lu ci ne yàllaa ko yayoo ci moom lañ ko war jëme laaye bi mooy ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ku yëg ci boppam imaan mu wóor ko ne xolam naafiq niw ci te muy def lu baax rek kem kattan sañ na sañ na jàpp ne yàlla dana nangu ab jaamoom sañ naa jàpp itam ne yàlla dana nangu ab ñaanam koo xam ne itam rafet nga njort ci na xolam fiq ñëw ci te yaa gis li yàlla digle ñu ne ci kem kattanam bàyyi lim tere sañ nga ko ñaan ne kooku bu la ñaanale yàlla dana ko nangu kon nag ñi yëpp ci seen bopp loolu nañ ñaan jàppale sëñ bi ci ñaan te dañuy loolu itam ko gis ci war na sàkku ñu ñaan ak donte ne loolu du ko tax a naagu jàpp loolu du tax nit ki naagu du ko tee góorgóorlu du ko tee itam moytu seytaane ndax seytaane daa daqal ngir lool lii la sëñ bi waxoon naa ko naa ko jottali lu des rek ci man la waaye moom def na ko ni mu ko mën a def wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu